tiis wacc mbuur di wéy di diis ba léegi gannaaw soxna Rama Dieng mi faatu ànd ak juróom ci ay gone euh, foofee nag ci lakk goo xamante ne nii moom moo fa amoon ñu daal di xëj ci guddi gi premier décembre euh, loolee nag euh, tax na ba fi ne nii ki nga xam ne nag moom mooy jur xale bu jigéen bi ak sët yi ci des ba fi mu ne nii nag di dëkke xol boo xamante ne nii xol bu naqaree defal la ndey Mati Dieng ca kër ga fii doo fi constaté bërëb bile bi jëye ji amee ba léegi ni le la mel daanaka safara si lépp la taal muy bépp objet boo xamante ne nekkoon na ci saal bi mu commencé ba ci biir néeg bi. file la soxna Sile di Ramadia ak juróom ci njabootam ñàkkee seen bakken. yow yi ma ngi ma fekk sama kër gi la ca tabas. booba daal dund naa fajar léegi yuux yi rek ma ne euh, moo sotti ci kaw ah moom doom yi daal gaa gaañu nañu loolu rek laa si am daal. bu góor bu Ramadia mu ne nag ñàkk na doom boo xamante ne sori na ci moom lool waaye itam ay sët yu mu bëggoon torop boobu nag ba léegi kilifa gi li nga xamante ni gis-gisam neexul jàngoroom dafa gën a yokku. moom kay boobante moom moo jàpp. ak soog bi moo dikkee sama doom ji ak mu baaxee woon ci man. muy dem yóbbuwaale na ma lool. su di moom dañu woon ñoo koy jàpp boo Moussa ñëw day ñëw di ñëw tëdd ci sama kaw rek maam maam maam maam maam maam maam rek. boobante mënu maa xapp ba di law ndax sama sët yi nekk sama kaw rek seen yaay baax na baax bu ne bëgg mu bëgg waaye waaye sama sët yi waaw def na régime. Maguette Dia mag la bu góor bu ndem si yàlla ci Rama Dieng muy naqarlu nag li mu ñàkk rakkam bu jigéen bi la waaye itam ay jarbaatam yu góor ak yu jigéen na ñoo bokk ndey ak bàyyi muy jigéen yu jàmbaare saal bi moo tàkk ñu daw dugg ci néeg bi ci biir néeg bi ci biir amul issue de secours fi lañ nekk ba agsi fee ñu fekk leen ñu dee ci biir Ramadien ak juróom ci doomam guddik benn fan jàpp ñaari fan ci weerub la ñu ñàkk seen bakken ginnaaw bi seen saal bi la tàkkee saxaar si fekk leen ci seen nekk ñu ngi leen denc kon ci sëg yu tefes bi jëye ji amee ba léegi nag amul benn source officielle bu xamle lan moo waral ba lakk-lakk gi am Ndeye Mati Dieng Mbour rajo Futur Média. Ndeye Mati Dieng euh, ministre de la famille euh, Maimouna Dièye demoon na fa yóbbu jaxalub gouvernement bi foofee euh, métti lu bu baax a baax tiis wi yóbbu na fa ambaloog ak loo xamante ne nii dinañ ko mën a jëfandikoo ci app dund ñu déglu ko. ñu ngi ñëw fii ci Mbour. seedeel leen. pour di leen seedeel. yéen jaamu yàlla yi. Euh, naqar naqar. bi nga xam ne gouvernement wu Sénégal yëpp am nañu. naqar boo xam ni man mii nga xam ni la ñu dénk ministère de la famille et des solidarité nee na naqar bi nga xam ni moom ci boppam. muy naqar boo xam ne en tant que jigéen. di naqar boo xam ne en tant que jigéen. tamit am naa ko. am na ko. muy tiis lool bu ñuy dund. muy tiis boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ànd bokk di ko dund. ci lii dal sunu mbokk Ramatoulaye Dieng. ak juróomi bant yi nga xamante ne topp nañ ko ci. waaye nangu dogalu yàlla rek. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. nee na ñun ñëpp ci yàlla la ñu jóge waaye ci yàlla la ñu dellu. nangu dogalam nag moo ñu noppal. xam nañ ne. yoon mi ngi ci liggéey bi mu war a liggéey bi mu amee rek gouverneur laa woo booba néew ma sax Sénégal waaye bi mu ñu waxee mbir mi naka la tëddee parce que yabal na préfet préfet ñëw am taxawaay bu mat sëkk préfet seede nañ ko léegi ñoo am taxawaay bu mat sëkk ñu ko ciy jë gërëm bu baax a baax nee na préfet ñu ngi lay ñaanal yàlla di la gërëm bu baax waaye di wax rek ni ñu ngi massaw njaboot gi yëpp njabootu Sénégal ndax ñëpp ku yëg te ñëpp ci am lu leen métti adduna bi yëpp am lu leen métti di jaal aussi waa Mbuur yàlla dogal ci biir famille bi ñu dénk foo laal rek ci famille bi dañ koy yëg bu naqar amee sax wala tiis wala soxla wala soxla nit ñi ministère bi lañuy ñuy yebal nit ñi ñëpp ci ministère bi la ñuy yebal kon tey ji bu naqar amee kon tey bu naqar amee sunu bopp lañ koy njëkk a jaal seen bopp lañ ko njëkk a jaal di leen masaw di jaal góor gi ndax xam nañ ne mi ngi ci biir waaye li ko tee xam nañ mu ne kon euh, Maymouna Dieye euh, ministre de la femme yóbbu woon jaxalo gouvernement bi ca tiis woowee association à la traité yi nga xamante ne nii seen borom kër dafa faatu wala seen soxna faatu solde ba ñu fa bàyyi woon ñuy wéy di ko fayu pension bi moom la ñuy wax ni nag dañoo bëgg ñu yokkal leen ko te itam IPRES ñu càmbar ko enquête ko audit ko xool ba xam la fa xew lu mu doon ndax euh, xel te na ñoom nag euh, ñu bëgg euh, président conseil d'administration bi daal di fay jógee ak euh, directeur général IPRES yëpp ñu wàcc leen ñoom ñaar ñëpp euh, marche nag fas nañ ko yéenee def bu fekkee ni euh, kilifa yi waxuñu dara ci seen soxla yi nga xam ne moom lañ leen diis conférence de presse la ñu amaloon ca Kër Massar Aminata Ba. ñu ngi préparé marche te danañ ko def ñu génn ci mbedd mi. di menace bi association bi ëmb retraité veuf ak orphelin yu Sénégal daal di def ñoom nag ñuy xamle ni bu ñu mooy lii dinañ daal di wàcc ci mbedd mi ngir daal chômage bëgg ñu yokkaleen seen pension retraite ñuy faju ci anam bu mucc ayib ak yeneen Demba Wele Diop di njiital association bi. pension yi ci boppam la bëgg ñu yokk ku feebar ñu faj la kenn mënatu la faju audit foncier financier social et même du personnel yéen ñëpp dégg ngeen fi le problème des tickets restaurant 572 millions palaatu ceeb ñaari junni kenn mësu gisul mel noonu dégg ngeen fi caisse de sécurité sociale milliard 800 millions détourné dégg ngeen fi gouvernement bu bees bi war nañ ko auditer ça tourne autour de neuf milliards de francs CFA. bile association ëmb retraité ak veuve yu Sénégal bëgg nag autorité yu bees yi daal di fiy jëlee njiital conseil d' administration bu IPRES di Mamadou Racine Sy. premier ministre Ousmane Sonko suñu waree dimbale retraité yi. mooy dañuy jiddi fii Racine Sy comme PCA et le directeur général. ñu dem sur de nouvelles bases. ba pare les centrales syndicales sont complices. ñoom ñoo seetaan lépp association bi ëmb retraité veuf veuve ak orphelin yu Sénégal xam le nag jot nañoo yónnee ay correspondance ba noppi autorité yi ñu sàkku nag ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mu daal leen di dalal ngir ñu mën a fësal seeni càkkutee fa Aminata Bakar Massar rajo Futurs Médias jërëjëf Aminata juróom-ñaari minute moo ci juróom waxtu fii ci rajo Futurs Médias wéy ci xiir biir xibaar yeeg euh, wàllu ko yeeg Sonacos tey jii bi traite bi taxawee euh, directeur général bi fexe woon na ba dara yëngu euh, donte bëriwul doole nag fala la fàttale li mu nisar ren ji ci bilan ci Sonacos muy ñetti téeméeri junniy tonnes yoo xam ne nee na bëgg nañu koo jënd Euh, joxe na fa nag euh, xaalis donte takkul ñaar fukki million ak euh, ñaar chèque boo xamante ne nii kenn kuy jënd la ko jox foofe ñu teewlu ko moom Alaaji Ndaan Diagne directeur général Sonacos ci micro Nafisatu Ndiaye ci Louga. suñu engagement vis-à-vis des opérateurs mooy déchargement yu gaaw mais fay gu gaaw dañoo bëgg ku ñëw egsi ak say camion indi sa gerte ñu déchargé ko rapidement waaye bu ñu ko déchargé le plus rapidement aussi ñu daal di lay fay su ko defee nga mën a demaat indiwaat beneen gerte ñu continuer noonu loolu nag. mooy li nga xamante ne nii dafa bokk suñu vision d'excellence opérationnelle mooy fexe ba opérateur yi aussi ñoom ñu am satisfaction ci ñi nga xam noonu la ñuy liggéey ak ñoom dañoo am diisoo bu ñu amaloon ministère ñu daal di xayma gerte gi nga xamante yaakaar nañ war nañ ko mën a am wante itam ñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ndax jiwu moom mënu la ñàkk olof day wax naan lu jiwu jeexul jugu fa te gerte gi waru fee jóg donc dañuy njëkkee jiwu bi ñu dencal ko suñu paree ñi nga xam ne ñooy huiliers daal di jël pour Sonacos li nga xamante ne moom la ñuy wut am ci ren ji mooy trois cent mille ton te gis nañu ni ni opérateurs yi ñëwee ak ni ñu fas yéenee jàppale ñu ci waxtaan ak ñoom yaakaar nañ trois cent mille résultats yooyu incha allah dinañ ko am remise premier chèque bi moom la wax sànq mooy remise symbolique premier chèque bi la pour manifester nekk jaajëf wala njukkeel bu ñuy delloo suñu xaritu opérateurs yi waaye yamul ci loolu waaye pour won leen ni kat li ñu diggee woon ak ñoom ci ni ku indi sa camion dinañ ko gaaw décharger waaye dinañ la gaaw a fay lay symboliser tey te dinañ dem ci yeneen usines yëpp daal fay def la même chose won leen ni bari na lool fu ab taaraar waroon a te dara newu fa salon made in Sénégal jombul gerte googee am na ñu ko transformé yóbbu ko fa produit lu koy lanu ko jagleel loole nag ay femmes transformatrice ak client nekk nag ci salon boo xamante ne nii nag moom lañ fay jaay waaye mel na ni ma ngay jar bu baax a baax Omar Mbow fa jaar reportage. produit locaux yi bari na fi lool. am na meew. fii nag ci salon made in Sénégal produit yi nga xamante ni dañ leen jéggaane bitim réew amuñ fi place ay jigéen yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di defar ci seeni loxo ay produits yu bëri nag ñoom ñoo fi nekk ci bu mu commencé exposé rek ci la client yi daw wut si Néné Sall moomee jógee ca Caaroy Gaara. bien sûr xaalis bi commencé na dugg parce que lii ku ko xool dafa original ku gis da koy bëgg doo bëgg lu dul jënd ci yow. commencé naa jaay mu ngi neex foire bi neex na macha allah vraiment bu bu bu suba melee nii dina gën a neex neex na ba pare macha allah. lu yées am xaalis bu bëri nag yilee jigéen yi nga xamante ni ñoom ñooy defar produit locaux yi carnet sinon suñu carte de visite yi ñu koy jox client yi. parce ñu bare dañ wax euh, dinaa jaar après. en lu baax lay doon parce que de contact lay de contact ki nga xamante ni moom moo sos moom daal dina xamle jamono ji événement bi daal dina nekk euh, ba bëgg a pour won sénégalais yi lépp lu baax lu ñuy def pour suñu réew. Euh, sunu autorité yi tamit ñëw parce que lii dafa am solo nga nekk ndaw nekk ci sa réew di liggéey di sentir ne say autorité ñu lay accompagner loolu rek dafa sedd xol. salon made in Sénégal daal dina tàmbali tey jii ci alxamis gi mu war a am ci diiru ñaari fan. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. mais ci biir xibaar yeeg waa Touba ak seen programme bu ñuy jàngee. Euh, ñu defaraat programme bu bees peq boo xamante ne nii nag euh, ca dëkk ba moom la ñuy yor foofe suufi ak Ahmadou Bamba la ñu wax ni moom moom moo ci ëpp doole foofee ministre bi demoon na sax fekkee ko ba daal di koy rafetlu bu baax a baax Moustapha Maba Guirassy Pape mbay Diaw gannaaw ñetti at yoo xamante ni nag toog nan di càmbar programme yi nga xamante nii ñu ngi koy jàngale ci école yi nekk fii ci Touba ci la kilifa yi nag daal di fas yéene indi ay coppite jëmale ko ci njàngeen mi bu a suñ bopp doon nañ jàng ku ne doon nañ jàng lu ne waaye bu fiyo jàng suñ bopp nag ñu tàmbali ba rek loolu moo ne ci suñ bopp léegi programme bi mi ngi woon ci terrain bi fexe nañ ba lu mat nangam école yoo xam ne mi ngi biir Touba ñoom ñëpp jot nañ ci programme bi ñu koy jàngale normalement installation comité bi nga xamante ni moom war a saytu programme bu bees boobu nga xamante nii dañ koy dugal ci école yi Touba yi Moustapha Guirassy ministre de l' éducation nationale di xam la ne programme bi lu am solo lay doon ci njàng mi. programme boo xam ni depuis 2018 ngi ci waxtaan ak ministère éducation nationale ba tey jii alhamdulilah ñu stabiliser ko indépendance école ñu ngi koy doog a dund ndaxte boobu ba léegi dañ kiy gis loxo tubaab bi te dalul xelu kenn mais su dee ak ministère éducation ñoom ñoo mën a programme boo xam ni ci ànd ci dugal ci spiritualité dugal ci wàllu culture dugal ci damay ne ndam bu rëy école sénégalaise départ bu am solo la. Touba nag daal di jël dogal ngir indi ay coppite ci programme yi nga xamante ni moom la ñuy jàngale fi loolu ba moo waral ñu daal di samp kuréel goo xamante ni mooy wéy di saytu njàng mi ak njàngale mi fii ci dëkk bi. RFM Touba Pape Mbaye Diaw. njàng mi ba tey njàng mu kawe mi université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fan yi nag mu xawoon a tàng ndax étudiants yi xaalis bu ñu leen fayee bourse amul ñu taxoon ñu jog nag janook takk der yi waaye am na lu ñu leen nar a mosal yaari weer lay doon yoo xamante ne nii mooy doon octobre ak novembre février euh, leneen lu dikkaat nag ñu soog leen ko jox leeral li Kumba Sanjaan Faye Votre correspondant ne peut être joint pour le moment. ñu jéema jot Babacar Diallo coordonnateur étudiant en master yi ne woon di grève boobook léegi daf di day ron ngir jot benn pàcc ci bursam payorub ñaari weer yooyee nag étudiant ñëpp yoo xamante ne dañu inscrire ci at bii ñu nekk mu bokk ci ñoo ñooñee nekk ci master 1 doon grève te jot bindu mu doon ab jéegop bu direction des bourses ci leeralu Jean Emébé Diatta directeur bi mujjee woon recevoir collectif bi. am information bu ñuy joxee tey mooy paiement bourse octobre novembre mooy premier paiement vingt quatre vingt cinq démarré na tey le cinq décembre boobu mooy information taille de la journée xam naa dem nañ ñoom dem nañ ba ci biir gis ni ñëw toog waxtaan moo gën bu ñu ñëwee toog ak ñun moo wax leen lu ci nekk ba pare wax leen loo xamante ne loolu la ñu prévoir pour defaral leen am na communiqué boo xam ne ñoom nañ ko génne pour wax ak communauté bi wax ak seen base. des leeral ne loolee laale up, rota up atub daaw muy fukki ak ñaar yi nga xamante ne ba léegi nii kenn mënagu leen ko fay février 2025 la loolee di mën a ne. le problème des retardataires mooy bu ñu daan waxtaanee dëmb ce problème il reste entier bu ñu def confusion entre paiement renouvellement ferme paiement réclamation yi ak paiement retardataire yi ñu ngi leen di dajale ba léegi le 20 décembre dinañu def bilan bi voilà bu ñu jotee enveloppe bi dinañ def paiement retard yi au mois de février. beneen mbir yi nga xamante ne réclamation gannaaw ba ñu amalee erreur ci seen dossier wala ñu fàtte leen door nañu ko àllarba gi wees noonu xamle kilifa gi. Kumba Sanjaan fay ci boursu étudiants yi ñu tàmbalee fay ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. kees ñoom seen université euh, seen coow moo goow seen diggantek euh, ñi di waa mairie ba euh, li jeexal coow li nag mooy palais des congrès bi ñu doon xëccoo fi mu ne nii nag dañ koy delloowaat mairie bi auditorium la woon ñu fay jëfandikoo ca université ba tey jii lañu ñu signé kon astafirullah signé nañu daal pro protocole boo xamante ne nii mooy tax déggoo boobu mën a am ki dox médiation bi di Abdourahmane Diouf ministre enseignement supérieur Cheikh Anta Diop ca Kees. jafe-jafe amoon ci diggante maire bu Thiès ak université Iba Der Thiam ci xëccoo suuf ay jumtukaay fii ñu def tey ji auditorium bu université bi waa maire bu cees di docteur Babacar Diop ne woon ñoom ñoo ko moom jëwriñ ji yor nu njàng mu kawe mi di docteur Abdourahmane Diouf dikkoon fii ci cees dajale leen waxtaan ba ñu gindiku. responsabilité maire bu tudd Babacar Diop ak responsabilité euh, recteur université bu tudd Mamadou Babacar Diaye seen responsabilité moo tax ñu régler problème bi pour man ñoom ñaar ñoom ñoo am mérite bi ñun dañ doon defar rek rafetal attew ñu xeex benn yoon on a juste facilité et tey ils ont eu l'intelligence de trouver ce compromis. maire Thiès di docteur Babacar Diop gis ne lii ministre bi def lu am solo la te tey jii palais du congrès. delloo nañu ko maire bu Thiès. ñu waxtaan ba xaatim benn këyit boo xamante ni dina indiwaat jàmm fi biir dëkk bi waaye aussi dina indiwaat jàmm entre diggante université ak mairie de la ville de Thiès man di demlente di dimbalente bu ñu ko jotaatee incha allah le vingt cinq octobre deux mille vingt cinq yaakaar naa ni naam mairie bi moo koy gérer parce que titre foncier beeg yëpp mais li ñu fiy def yooyu yëpp yaakaar naa am nañu temps parce que Thiès day dëkk boo xam ne mënoo xëy xëy rek yor ay projet ni acteurs yi gis nga ñoo gënoon a yëngu ci xeex bi. recteur université Iba Der Thiam bu Thiès di docteur Ababacar Ndiaye ne waxtaan moo indi lii. conseil d'administration bu université bi di gërëm Thiessois yi di leen wax ni réeroo bi amoon suñu diggante ak mairie bés ni ki tey yàlla def na ci saafara. ci at yi ñu génn mairie Thiès ak université Iba Der Thiam ñu doon suuf si tey ji jàmm nee na ñooy RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf Cheikh Anta Tëngéej préfet ba tàmbali naa désencombré. jàkkalaat toogaay bi yëkkati ñenn ñi nga xam ne nag xel xalaatul ñuy continuer di toog foofee euh, tàmbalee ko ca garage ba nga xam ne nag fa la daje euh, boulevard Maurice Guèye itam euh, dinañu ko kon vidé ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa toog te jaarul yoon directeur du cadre de vie moom fekke woon na opération yi foofee Abdou Diouf Diagne désencombrement bi dooraat ci Tëngéej gare routière bi oto yu yàqu ya fa nekkoon ak garage mécanicien yi lépp la ñu fa jëlee Maguette Ndiouk mooy préfet bu département bu Tëngéej gare routière bi gis ngeen ni mu meloon ci jaxasoo bi nga xamante ni passager war dugg dem ci yeneen dëkk yi ni ñu amee woon problème ngir yegg si fi ndax amoon na ay artisan yoo xamante ni seen nekkin wala ni ñu fa nekkee woon daal xawoon na jaxasoo tuuti waxtaan nañu ak ñoom am na fu ñu leen yóbbu accompagnement bi ci def pour fexe ba nga xam ni incha allahu rabbi ñooñee artisan yooyu dinañ am fu ñu dem dañ koy désencombré waaye lii problème bi mooy nan la ñuy ñëwee ba sécuriser ko li ñuy gëm ni mooy li nga xam moo ko mën a sécuriser mooy aménagé ko aménager ko ba nga xam ne au moins nag dina permettre améliorer cadre de vie des populations waaye tamit fexe ba nit ñi nga xam ne ñoo ko occupé woon duñ ñëwaat ndax am na accompagnement bu ci am ba ñoom duñ ñëwaat foofu noonu loolu moo tax may remercier bu baax a baax a baax autorités territoriales yi. maire bu commune bu Rufisque Ouest di ñaax nag naataangooy ñu daal di jàppale préfet ci lii nga xam ne moom la mbëbët bu ko defee ñu mën a soppi xar kanamu Tëngéej nga xam ne jamono ji kenn xàmmeewu ko Afrique bu handball ci euh, jigéen ñi di am fële ci République démocratique du kongo euh, Sénégal moom mi nga xamante ne ni qualifié woon na ci demi-finale bi ëllëg ci aljuma ji lay dajee ak euh, Tunisie ngir xool ni muy def ba daal di koy dóor ngir mën a jàll nag ca finale ba ngir mën a ngardaajoo li nga xamante ni moom moo di coupe ba ñoom jigéen jigéen ñi nga xamante ne ñoo bokk ci équipe boobee nag ni ñoom noppi nañu tax xam nañ nag équipe bi ñuy dajeel du ñeexu ñebe ci yi waaye daañu def lu nu mën ngir fexe nag daal di koy éliminer jàll ca finale ba Soda Thiam. ci quart de finale yi nag gayndek anbal yi dañoo daal di wane seen xadar ngir jàll ci demi-finale waaye itam corrigé seen contre performance yi nga xamante ni amoon nañ ko seen digganteek Congo mi leen daanoon Dungu Kamara di ko firnde firndeel. Euh, ah, sunu match contre Congo aju woon nag ci xool kan mooy euh, jël première place bi daanaka contre performance la woon moo tax nag gannaaw gi ñu defarwaat daal di jaajuwaat euh, takkaat suñu ndigg ci sunu digganteek camerounaise yi moo tax fulla ju mat sëkk lañ ci daal di wane. gannaaw quart de finale yi nag Sénégal di jàkkaarloo ak Tunisie nga xamante ni moo éliminé Congo moom mu di nag ab jongante goo xamante ni dina metti loolu bu ñu sukkandikoo ba tey ci arrière droite bu gaynde yi. on s'attend à match boo xamante ni bu metti la nag la ñuy xaar ndaxte ku ne xam na ni niveau équipe bii di Tunisie dafa daal di kawe loolu équipe bu mën li muy def la te dañoo jóge nag ci defaruwaat boole ko tamit ay joueuses yoo xamante ne nii ay xale yu ndaw lañu moo tax nag du yomb waaye ñun tamit duñ leen ci bàyyi ndaxte ci défense bi comme ci attaque bi Euh, daal day dem ba jeex nag euh, ngir tulanti comme nanu defoon euh, suñu diggante Cameroun. comme on a pu le faire laata nag ñuy amal demi-finale googu Sénégal moom am na tikkeem gu koy yóbbu ba noppi ci coupe du monde handball gi nu jàmm loolee nag di mbégte bu rëy pour Dungu Camara. une qualification championnat du suñu qualification ci championnat du monde yi di ñëw nag mbégte la si ñun moo tax nag daal dinañuy bég loolu ci li nga xamante ne nii daal nañ koy def ci jaloore waaye nag nañ jàpp ni jaloore gi du sénégalais yëpp la rawatina ñii di fédération sénégalaise bu handball. parce que c'est une victoire pour toute la fédération sénégalaise de handball. demi-finale yi nag niki aljuma ji lañ koy daal di amal Sénégal di jàkkaarloo ak Tunisie Égypte fas yéene jàkkaarloo ak ka nga xamante ni moo yor titre bi di Angola. jërëjëf euh, Soda Thiam ñu daal di wax ci euh, basket ak championnat d' Afrique euh, des clubs bi war a tàmbali ni ki ëllëg ci aljuma ji ñeel jigéen ñi mu doon tournoi boo xamante ni fii ci Ndakaaru lay amee ci stadium Marius Ndiaye fukki club ak ñaar nag ñoo ci war a bokk te yooyu la club nag ñu ngi leen daal di tasaare ci lu tollook ci ñeent ci ay poule ngir gën cee indi ay leeral dañuy déglu ki nga xamante ni moo di Pathé Keita di vice président ci fédération sénégalaise bu basketball. dañ koy déglu ci euh, micro Soda Thiam. ci fukk ak ñaari équipe yi euh, fukk ñoo fi nekk gum am na benn boo xam ne bu Nigéria compétition bi suba lay commencé moom plan de vol bu mu ñu yónnee suba si guddi lay ñëw dina fekk compétition bi commencé xamaguñu nag waa FIFA lan ñu prévoir beneen équipe bu Nigéria bi aussi parce que moom invitation la am ba léegi signalé gul mais lu ñu prévoiroon mooy fukk ak ñaari équipe ñett poule lay doon bu ne ñeenti équipe équipe bu ne dina am ñetti match après ñaar ñu ñaar ñu jiitu qualifié quart de finale après euh, les deux meilleurs troisième des trois poules ñoom aussi ñu fekk si leen quart de finale mooy Ville de Dakar suba lay joué premier match am te match Ville de Dakar yëpp pratiquement dañuy am choix parce que équipe organisée day am quand même ses priorités pour le choix de l'heure bu muy jouer donc euh, c'est sera c'est que entre dix-sept heures et dix-huit heures match yi si lu ñu jàppagum euh, treize heures la ñuy wax lay commencer parce que bu nekkee formule euh, bii ñu am six matchs am par jour donc jàpp nañ ni sax loolu danañ ko xoolaat parce que euh, six matchs par jour parce que salle d'entraînement bi match bu équipe bu ne nga am au moins si salle bi ngay échauffé woo au moins dina la jox benn trente minutes quarante cinq bi ngay échauffé woo ak présentation yeeg yooyu donc c'est sûr que gëwma ñu commencé treize heures su boobaa mun na gën a teel mais lu ma jàpp di mu ñaari équipe nigériens yi ñëwul jàpp naa ne mun nañ changer formule bi def ko ñaari poule de cinq nga xam ne voilà ñeent ñu jiitu dem quart de finale. ca mujjantal ga nag daal dinañuy jooyanti ma kumba ndaxte eh, ASC wala eh, gendarme bu ndakaaru eh, la nu mujjee woo ngir mu daal di remplacer benn ci ñaari club nigérian boobee nga xamante ni nag ñëwul di Customs du Nigéria. mi daal di mujj forfait ci euh, tournoi boobee la ñuy desandi léegi Sénégal euh, ñaari club lay am ñu koy teewal nag ci gile jongante euh, Jeanne d'Arc bu Ndakaaru nekk nag ci groupe C ànd fa ak Rwanda Energy groupe ak tamit Ferroviario bu Maputo di club bu bawoo ca Mozambique ak tamit ASB bu Makomeno nekk ca République démocratique du Congo ASC ville de Dakar moom mi ngi ci groupe A bi ànd fa ak Al Ahli bu bu Égypte ak tamit les forces euh, armées et police du Cameroun ak tamit euh, beneen club euh, bi ba ca Nigéria di Mountain of Fire Miracle wax ni Makumba loolu anglais la Coupe d'Afrique <laughs> de feu <laughs> mu nga wax ni Coupe d'Afrique des clubs champions féminins boobee dina tàmbali ëllëg juróom benn fan jeex fukki fan ak juróom ci weeru décembre gi ñu jeexale ko ak euh, football ca bitim réew euh, ak euh, fukkeelu bëccëg ak ñeent bu championnat Angleterre bi ñu doon àggali fi mu toll nii nag mënees nañoo jàpp ni Fulham bi nga xamante ni mi ngi ci douzième place bi moo daal de surxal Brighton mu nekk ci cinquième place bi ñetti bal ci benn ñu ngi ci temps additionnel bi match ba juróomi simili la ci arbitre bi daal dee dolli ngir ñu daal de jeexal googule ka jongante daal de wax ci beneen jongante bi doon dox ci digg diggante Bournemouth euh, ak euh, Tottenham bu Pape Matar Sarr euh, Pape Matar Sarr Bournemouth fu mu toll nii nag moo jiitalagum Tottenham benn bale ci dara ca Italie ak huitième de finale bu Coupe d'Italie ñoom ña nga ca son septième minute Lazio moo daal di jiital Naples ñetti bal ci benn makumba beey. jërëjëf ndongo ka ci xabaaru tàggat yaram yi. le tour du web ci RFM. tour du web bi ñu